waaw euh, Père Moustapha Gueye maa ngi nuyu axlu làmb di nuyu amateurs yi di nuyu waa euh, TFM di nuyu ñëpp képp ku fay liggéey man Lac de Guiers 2 maa nekk écurie Waalo euh, dugg fa en 2002 am 32 ans bëree 15 combats waaw am ci 11 victoires Euh, benn euh, sans verdict ak ak euh, ñaari match ni ak benn défaite. trouver combat nag déggee deux ak ñi ñuy woowee les VIP doon problème lan mooy seen lan mooy waaw en parlant de Lac de Guiers 2 pour mu am adversaire lu ci man mbir ñoo ragal nañ leen waxante dëgg te yàlla tax affaire teggante yi moo waratul am dañoo war a ñëw ñu bëre. ku ci daan rek ñu xam ne loolu la yàlla dogal mais di teggi mbër bii du ma bëreeg diw du ma bëreeg diw man du ma ko def mbër bu ma ci war a bëreel damay bëreeg yow waaw. mais ñu seetlu aussi sa combat ak Eumeu Sène da nga jël micro ne sa benn tànk bu delloo ginnaaw rek moom mooy yow perte nga combat bi. Mhm. ñu gis ne sa tànk dellu ginnaaw perte nga combat bi. Mhm. est loolu nekkul rëcc pour yow tey. waaw xam nga loolu waxin la woon rek parce que tey ñu bëri na ñoo dama ko waxoon pour dama bëggoon cokkaas am Sène maanaam dóor ko dóor boo xamante ne daf may wone buy ñëw day fayu si far moom tamit bon comme ma ma jiitu ci làmb ba muy bëree bëreegu ma maa ngi toog di ko seetaan mu njëkk ma ci li ma bëggoon def ñu bëri dañoo yaakaar ne ba dëggaloon sama bopp mais taxaw ba ma taxawoon noonu du woon dëgg dama doo xaar mu fayu moo waroon ma ñuuxu ko noonu di xaar muy fayu laawam yo ma daw wàcc far yàlla loolu yàlla ma dóor ko taxaw mu miime ma day ñëw comme miime mi yooyu xëcc dóor ay laawam mu jiitu ma ci buntu kër ga jël buntu kër ga tëj kaak caabi génn dem yoonam. kon boog xam moom daanaanu làmb la kon boog tombé mu mais tam su ma déggee ne gars yi ne la déggee deux xam nga dafa ne bu aree lu ñàkk aree parce que sama wax boobu noonu. mu ma jiitu moo tax. mat na ñaari at ñu ngi wax sa diggante ak Yékini est-ce que promoteur mosagum na jóg ñëw ci yow dox sa combat ak Yékini. ok waaw en parlant de ça. Euh, dama lay reposer question bi. sa diggante ak Yékini. nan la woon. sama diggante Yékini bi ñu bëree. waaw dañoo bëree match nul. match nul sama diggante yow lan la. dañoo bëree nga daan ma. ok kon donc damay bàyyi waa àdduna bi jugé loolu bàyyi naa ko seen loxo ñëw loolu nag tontu bi moom mooy combat ak Yékini combat bu jaadu la ñun tam xam nañ ne jaadu na ok maintenant à part Yékini est-ce que mën nañ la bàyyi la dëgg numéro 2 nga lancer défi. pour man am na ci benn côté boo xam ne tëb nga ko parce que war nga fa foofu tamit pour man nit bu duggee sa biir kër daan fa. ah daan fa ba daan fa nit koo xamante ne moom moo nekk sa poulain pour man war nga génn wane sa bopp lan nga bëgg wax foofu nag dëgg nay leer waaw wax gi waaw wax gi xam nga mooy lan hmm. moom mooy ba ma duggee biir Fass uh-huh. dama fa daan ñaata nit lim ko ñu dégg ah lim ko rek ñu dégg wax ñu ngi fa daan ñëpp daan naa fa kat daan naa fa Babacar bu Fass uh-huh. daan fa Batika uh-huh. daan fa Papa Sow ak sama papa sama papa ban waaw ah? non dañ koy kii rek yow tu veux parler de Gris Bordeaux mais Gris Bordeaux moom laay waxal. mais Gris Bordeaux bi ngay waxal loolu mais na euh, euh, ak gabareem. waaw impressionné wu nga war a bëri moom. taayu kan. Gris Bordeaux ak gabari Gris Bordeaux. ah gabareem moom. non bu fekkee dama nar xalaat loolu kon ma bàyyi lamb non man bu fekkee loolu dugg na sama diggante moom rek kon naa bàyyi lamb ak bagaaru Gris Bordeaux. sa xeex ak Gris Bordeaux. ok léegi bagaar boobu laa soxla nag loolu moo tax ma ko mën naa ko na ñooñu bëri. amoo benn chance pour nekk waa des arènes parce que roi des arènes bi doo bëreeg moom loolu lu mu def ci yow. waaw euh, nekk na loo xamante ne dina xaw a métti tuuti ci man parce que ki nga yor sama grand la euh, wax naa ko waxati ko euh, dafa am lu ñu boole maa ngi moom te ki ñu boole maa moom ndem si yàlla bi. na ko yàlla yërëm. yàlla suuf sedd ci kawam. amiin amitié boobu dugg sama diggante moom ma am kàddu gu mu wax moom tam mu am kàddu gu mu wax. loolu moo tax ma jàpp ko ba nii tey te même bu ko yoroon tamit loolu amul problème man li ma li ma ñoon moom mooy naay bëri di daan sama parcours di baax may am ci xaalis bi mhm. di dimbali samay waajur di dimbali ñi nga xamante mooy néew di doole à l'endroit de de de de Modou Lo. est-ce que seen combat la wala wala dafa am dafa si Modou Lo kay bu paree pour bëri man par rapport pour bëri moom bu yàgg. ñoom kay dañuy dem nga laaj leen lan moo tax ñoom bëgguñoo bëri man pare naa pour moom bu paree rek pare ah, moom nee na pare naa. waaw man tam pare naa parce que na ko journée wax na ci rajo bi. man pare naa pour bëri ak moom amul benn problème. yaa ngi ñoom ñëpp tant qu'ils sont ñoom ñëpp ku ci tudd la dëgër rek ku ci tudd la dëgër pare naa pour bëri ak ban message la nga mën a lancer écrit wàll bi nga xamante ne fa nga nekk. mbër bu ndaw bu ciy dem rek bu ci daanee benn combat rek ne ko foofu dara. parce que man je me rappelle très bien ba may soog a débuté su ma bëree sam premier sam premier combat bu ma njëkk a bëri damaa ñëw ba suñu kër dem ba ci ginnaaw rëdd benn trait ne def naa benn combat ba moo nekkoon sam premier combat ma jël ma jël euh, këriñ ma baare ko ma ne def ma fi dara man maa doon fóot ngem bi nekkoon suñu écrit sax bu gars yi pare maa dajale ngem bi yëpp yëpp gu suñ kër ñu fóot lépp weer lépp kon donc am na loo xam ne waruñu ko waruñu ko tuufee ci bopp bu xale yi daal nañ fexe xale yi di gën a góor góorgóorlu fexe leen boole ñu doon benn parce que bu amee clan rek du dem te loolu clan baaxul ci cri nit ñi dañ naan euh, Lac de Guiers 2 mooy tëdd fi déedéet non j'aime pas ça bëgguma lool nañ jël na xam ne Abdou Diouf mooy suñu mag xam nga xam ne moom mooy suñu mag moom mooy ñu jiitu ci làmb moom mooy tête de mm. mu bëree mu ñàkk bëree mm. mooy sama tête de file mooy tête de file Alioune Seye 2 mm. keneen ak keneen ak keneen pour gars yi xam loolu c'est très important la mu def mais ban message nga nga ñu mën a bàyyil ci euh, nga ñu mën yóbbante ci Alioune Seye 2 junior ku ci 2 wala junior deux mu ngi nii Alioune Seye numéro 2 bi nga xamante ne dañu gisoon mm-hmm. bu duggee ci ñu ne yow la yàlla day bind du yamale nag c'est ça le problème yàlla day bind du mais bu fekkoon nit ku nekk li nekk sa xol rek da nga koy génnee wan ko ko kon dinaa sa mbot woon ko yàlla rek moo tax may wax du lu mu toog nag moo tax parce man du ma jaay benn doomu aadama xaw ma loolu ndax nit ku dee ak sa bàmmeel euh, yàlla rek moo ko mën a fay dama koy bàyyi ak yàlla euh, di la wax ne kat grand gis nga kii mbër bu dem bu bëggul bëre moom rek jàppal na nga ragal parce que man xam naa bu baax kii qualité am ak moo ko numéro nax naka nga gisee émission L'Oeil du Tigre ban jàngat nga ci am waaw euh, L'Oeil du Tigre nekk na émission boo xam ne émission bu neex la parce que li ma gën a neex yëpp boo téyee sa sa <laughs> waaw war a damat affaire yi ba mos maawoo ba teg sa baaraam ne gis nga fii dafa teg tànkam fii xoolal Lac de Guiers xoolal garde ga mu yor xoolal nu mu arñee xoolal moo Papa Sow mais ba mos maawoo non xoolal boo nee Bomos non damay kontaan dama ne waaye sama grand waaye. loolu mooy xoolal ca baare ba fii la dëgër wàcc na def na recul Papa Sow ba léegi li ma ci gën a neex moom mooy seen garde ñoom ñaar dañagul Bomos Maodo allez xoolal ñu ngi léewtoo la dëgër ba léegi mu ci garde Papa Sow pareil ñu ngi ci garde normal am Bomos Maodo mais xoolal grand c'est mais c'est toujours nice da xoolal ba ba mos boobu ko bàyyi non boobu moment non c'est extraordinaire nice na.